maa ngi tudd Adama Diawara nekk euh, coordonnateur départemental adjoint bu Pastef ci pays yëpp bi ñu defee alternance de 2000 euh, yàlla def quelques années encore avec le président wad mu amaat beneen alternance mais aujourd'hui euh, dañuy gis ni avec le président Macky Sall li doy waar mooy l'installation situation politique très instable marquée par volonté président Macky Sall d'abord mu def troisième mandat bi ci des mooy sa volonté d'éliminer systématiquement ses opposants bi ginnaaw bi mu bu mu éliminer xalifa Sall éliminer Karim Wade aujourd'hui sa volonté c'est quoi c'est d'éliminer Ousmane Sonko. bi ci des mooy avec l'affaire euh, Adji Sarr mu nekk lu doy waar euh, dans une république où c'est la république entière tout entière moom moo booloo dooleem pour éliminer un, un, un opposant. Pendant deux ans, ñu tenir le Sénégal en haleine di leen wax ne dañoo am ay vidéo dañoo am ay preuve ñu ñëw ba ci procès ba amuñu vidéo amuñu preuve amuñu lenn lu xam ne day matérialiser le viol ou bien les violences yi nga xam ne fii bi waxoon na ne def nañ ko bi ci des te gën a graaw mooy fii bi ci boppam elle-même mu génn wax ne loolu yëpp dara amu ci woon que daf leen doon nax rek donc elle se elle se joue de de qui malgré tout ils ont tenu à aller en procès bi ñu demee procès ñu ne daan nañ son Sonko ñaari ati kaso mais loolu tax tous les euh, euh, citoyens patriotes épris de justice taxaw ne loolu du fi amee aujourd'hui on en est à combien de pour lan ay caaxaan yu nga xam ne moom moo am ci réew mi te loolu kenn waralu ko dul le président Macky Sall ki moom mooy responsable de tout ce qui se passe dans ce pays toute cette instabilité bi nga xam ne moo am dans ce pays un pays complètement divisé à cause de la volonté de makisal mu def troisième mandat toog ci bopp réew mi te li mu fàtte mooy le Sénégal n'est pas Congo le Sénégal n'est pas yeneen pays ñun dañoo am un passé démocratique bu ama am solo ñu am ay jaar-jaar bu nga xam ne euh, budul sax les jeunes am na mag ñoo xam ne loolu duñ ko nangu am na mag ñoo xam ne loolu duñ ko nangu donc cette volonté la mu bëgg ko mu neex ko mooy Macky Sall du dem 2024 te Ousmane Sonko di dina dem 2024 parce que loolu mu bëgg a def loolu ñaata tey ñaata journaliste yu nga xam ne c'est par de de par objectivité de par euh, opinion lañ leen jàppee ñu ngi ci biir kaso bi ñaata nit il y a 700 personnes aujourd'hui yu ne ñu ngi ci biir kaso bi ñu nga xam ne ñenn ñi depuis plus d'un an di leen toppee yu nga xam ne kenn xamul lan la tantôt on parle de force occulte tantôt on nous parle de rébellion tantôt on nous parle des choses yu nga xam ne jusqu'à présent il n'arrive pas c'est des jeune de PASTEF qui sont tués. Et c'est des jeunes de PASTEF qui sont gazés, c'est des jeunes de PASTEF qui, sont dans, qui, qui se soignent. C'est parce que juste ce sont des patriotes qui disent non. Qui disent non et qui disent que lii du fi am c'est-à-dire li ñu defoon def ko euh, Karim Wade duñ nangu ko ko def Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko dafa constituer un espoir pour cette jeunesse. parce que dafa ñëw am discours moo xam ne kenn mosu ko cee am muy mu promettre leen lu nga xam ne en terme de rupture nit ñi am nañu yaakaar ne. loolu tey su amee Sénégal lu bëri mën na changé ñu Macky nag ak yi ñooñom taxaw ne loolu du fi amee ñoom dañu bëgg rester au pouvoir et aujourd'hui dégg nañ muy wax naan deux ans de plus pour dire deux ans de plus du ko am il faudrait que l'on respecte le calendrier électoral il faudrait que l'on respecte le calendrier électoral mais bi ci des mooy ñi nga xam ne dañu war a jël seen responsabilité ci réew mi ñu jël seen responsabilité parce que réew mi toll fu nga xam ne seen i taalibe ñooy dee seen doom ñooy dee seen i ñooy dee ak ñeneen ak ñeneen te ñenn ñu leen di rey mooy ay nit yu nga xam ne ils ont été recrutés par le parti au pouvoir ñuy def ñaawteef yooyu dara du leen ci fekk on a vu les images un peu partout aujourd'hui li ñuy fàtte mooy on est à l'ère du numérique su fekkee tëj nga ay télé parce que dañuy relater ce qui se passe sur le terrain les gens ont leur portable et ils vont prendre des images ils vont prendre des archives qui vont prouver aujourd'hui ñaawteef fi nga xam ne ñoom moom lañ nekk di def sur le terrain mais xoolal xoolal xoolal xoolal condescendance bi muy waxee da ngeen may ñaan njëkk mel na loo moom la non Macky Sall moomu ko en réalité c' est la loi moom moo war a prévaloir surtout sax ça en réalité la loi dit que nul ne plus de deux mandats consécutifs te loolu la Macky Sall bi ci bi ñuy bu ñuy voté référendum bi loolu la jaayoon kilifa diine yi loolu la jaayoon euh, parti politique yi loolu la jaayoon ñi ci jàppoon loolu la jaayoon presque ñëpp moom ak ministre de l' intérieur am ministre de la justice am premier ministre am ñoom ñëpp loolu loolu loolu lañ jaayoon nit ñi mooy man Macky Sall ñaari mandat lay def ginnaaw 2019 day def deuxième mandat am su paree pare na ci su amee ku muy préparer dans son parti il n'a qu'à le mais lu lui il ne sera pas candidat